ngir jëmmi sëriñ bi yow it nga defar léppit nag di ñaan daal ci barkeb Cheikh Rafal sa soxna sii daal sëñ baa ngi seede ci moom di la ñaanal yaak soxna si saa borom guddal seenu fan te wéral leen te kattanal leen barke maam Cheikh Rafal ndax kat yëfi woyof na lool nag ndax ni mu woyofa mooy ndax soxna Seynabou ci buum la nekk te waxtu wu ne mi ngi wuy ji ndigal te heure bu la tàggoo nga bàyyi ko loolu moo lay wanal ni kat fee nga jëm kat man yaa ma fa nekkal waaye teewul xol ak xel yëpp rek waxtu wu ne ma fa. barke maam Serafal kon yal na yàlla guddal fan wi yal na la yàlla wéral yal na la yàlla kartan ba li nga yéene yàlla na ko sunu borom bi defal sëriñ bi li mu yéene ci taalibe yéene ko soxna say Saynabu bi saa borom defal ko ko ndax kat am bis ci bis bu toll nii ci Thiaroye sur Mer wëlbatiku tudd ci soxna Saynabu kon loolu mi ngi koy delloo kat li nga xam ne moom la soxna Saynabu lewal Cheikh Moussa barke maam Serafal kon loolu yombut ànd ba kon day àndub dëgg te kat yoonu ndax maam rafal kat bokku na ci ci mi mi ak Serigne Touba bokku na ci lim ko wax niko man kat Mbakke ma ngi lay jox sama lepp bam dess sama jom ak sama ngor sama jom ji nak Mbakke mom la lay liggéeyal ba làq sa ngërëm waye nak sama ngor gi mom la sam sama digeunte ak yow ba lima fasante ak yow du fecc ko pas-pas bobé nak mo nek ci seynabu nek ci kenen ak kenen ci talibé ndax kat ñun pas-pas ak ak ndigal rek mo fi maye dara kon nak assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh. waaw ju Ibrahima mi Diouf mi ndax euh, dama gis ci moom loo xam ni wa xillatul mar'o at al dañuy wax ni nit bu ñàkkee kersa ñàkk na genn wàll diine waaye bu amee kersa diineem jépp mat na waaye moom mii nii lañ doon wax naan euh, Seydina Ousmane dafa am kersa ba malaayika yi dañ kaa rus waaye man mënumaa toog ak moom jotaay bu yàgg ngir kersaam ba pare dafa am uh, teggin mooy teggin moo gën ab yar ndax dañuy wax ni boo yaroo boo gisul kala yar mën ngaa def ak yaree ko waaye teggin foo jëm yóbbaale ko ba ca topp sëñ Tuubaa dañu nit ki bu amee teggin dana di àjjana danaan ko dooma fi bàyyi ndax ñoo bokk fu ñu jëm waaye nee na boo yareeti ko sawara danaan ko dooma fi bàyyi ndax ñoo bokk fu ñu jëm kon ba pare eh, kii nga xam mooy soxnaa man mënatumaa wax ci moom dama mm, chauffeur bi damaa xool ba caag mun ma kii de ba mu xamee ba tey du bàyyi ma ni ko eh, giñ naa ko ci alxuraan ni kii sunu borom moo ma ko tànnal waaye man xaw ma sax fan la ma jëlee ndax waaye nag lu tax ma gëm ni sunu borom moo ma boole ak liggéeyal Cheikh Ibra sëy na bu ñu ngi xamante Mbàkke Kajoor fa Cheikh Ibra jébbaloo ci laa xamee nag njébbalug Serigne Touba ak Cheikh Ibra dëgg la moom laa koy xoolee. moom bu xëyoon ni ma dama lay bàyyi duma ko bàyyi te jigéen la waaye li bu fekkee dañuy wax jigéen la goo xam ni du wax te mu ngi jëf ba pare maandu na te buñ ñëwoon dañuy sasoo trente mille danaan may joxe man cinquante mille laay sasoo ba pare teewul li ko war digganteem ak borom këram li ko war ak digganteem ak ay mbokkam li ko war digganteem ak jaami yàlla yi ba hôpital képp koo xam ni sëñ saaliyu Fall moom mii ndigal mu sëñ Cheikh ndigal damaa woo ni ma numéro Seynabou laa laa soxla keneen noonu sëñ Baara damay woo ñeneen dañ may woo ba sous-région bi moom mii xam na ci dara loolu dox gi muy dox ci yoonu Cheikh Ibra ak sëñ Touba waaye nag yàlla dana ko fay ba adduna bépp xam ko ndax loolu du nekk loo xam ni saayir la nii dana dana ci am fajuk aaju àddina ak àllaaxira moo tax nag man dama ëmm ma ko fayee ndax alal lañ ko waroon a séq te alal moom moo ma koy jox bu ma ko doon jox day bañ moo ëmb lu ma ko fayee li li ma ko mën a fayee mooy mbooloo mi toog man leen bis bi laa am Seyna bu bokk na ñi nga xam ni ñoom laa tudde bis bi ndax loolu bu ma amoon leneen lu gën a rëy loolu it dama koy te bis baa ngi ñëw te it eh, lu mu gën a doxit bu soobee yàlla noonu lay gën a demee moom mooy Baye njaga doomam mm, Ousmane dafa nekk Amérique ngeen ñaanal ko mu am xéewal ndax ñaari at yëpp ñoo naan ànd ci liggéey bi magamit euh, kii do am na boo xam moom jarbaatam la ñu koy wax Sidi Diouf sama taalibe la barki démb yónnee na ma addee ju bari ni ma ñu jàppe ko cant gi moom mii moo leen fi teewal ndax gone yi ñëpp a génn waaye nag moom moo mooy akasa sàmb soxna ndax ay maga ki rakk lañu muy nit ñu baax nag maa ngi leen koy seedeel loolu daal laa ne woon nan ci nan nan ko sànni ci kàddo yi rek muy loo xam ni ñu ñu ngi leen koy seedeel yéen ñii mu Moustapha kàddu gi rafet na lool nag wax dëgg yéen moom maa ngi dëkk xam ngeen nu mu demee waaw yow it yàlla yàlla yàggal seen taxawaay daal loolu daal laa doon duggee Diouf daal bett bett nga ma waaye yàlla na suñu borom bett ay xéewal ndax sax njaboota ngi nii ñoom ñii tout tànk yi ay njabootam lañ bu la neexoon boo yabalee rek ñu kontaan muy soxna si waaye yow nga nga teewal sa bopp kon tamit ñu ngi lay ñaanal xéewal ak gudd fan sun borom musal la ci cat ak làmmiñ ba lépp loo mébét yàlla na la ko yàlla jotaleel suñ digganteeg yow nag tàmbali na tey te du ñaanuñu yàlla mu dog ba ilaa yawmi diini ak siidi Diouf mi sama jarbaat di sab taalibe léegi nag ñoo ma chargé ni ma daal nu ma mën a def naa ñëw teew ci bis bi waaw maa leen fi teewal léegi nag moom na woon fa woon rek moom xol sedd na waaw tubaarkàlla ndax yàgg nañ maa wax ci téléphone ni ma daal muy Sidi di Ousmane bis ba daal moom nanga nga euh, def tout rek pour teewaaleel ñu te te ñi ngi sàkku ay ñaanit waaw ñi ngi sàkku ñaan waa ndax nee na daal lañ doon euh, xeeñtu ci yow ah la gis nañ ko ba ñoom ñëpp ñoo ngi ci réew ma kon nag doolu leen ay ñaan li saawan baawan ñuy mën di indi at yi nii nag mun a ñàkk bañ mel nii ndax li ma wax léegi rek càkkar boo gis ay bokkam ma ko xadd Amadou Fa Seer Njaay Birame Jobi càngaay Falma Yaasin daawul mu ci mbul doomi mbër day nuru mbër nu xam ni mbëray baayam Cheikh Roqaya seen baay waaye nag Cheikh Baye Góore seen maam Cheikh Moussa seen maam Cheikh Rafal Babli seen maam njàmbaar yàgg yàgg naa feeñ waaye gaynde yàgg naa daan te njàmbaar nag ci ndaw lay feeñ jëf ci bi ngay man ndax doo la dafay jeex ndokk nag ba ngeen xamee loolu xam ne Cheikh Roqaya seen baay sëñ Cheikh Faale seen maam ngeen yor pas-pas bi ak jom ji ak ngor gi ba waxtu ne yéen a ngi dundal loolu kon yàlla na yàlla guddal seen fan jotaay bi yàlla na yàgg barkeb Cheikh Rafal ah mu mel jataay bi ba tey bàjjen Ndey Faal a ngi nii moom soxna Njaaye Faal moom Serigne Modou Aminata Faal moom Cheikh Moussa Faal maam Sera Faal Babal Mouridine ngeen bokk baay Cheikh Roqaye di baayam soxna moom soxna maam say moom nga xam ni lépp mooy sotti ci ak def ci la ndax kat Faal boo wootee say bokk ñëw say taalibe ñëw tay am di jamm ñew ñi nga bokal bay bok ak ñom Serigne Cheikh Ndigal bok ak ñom Serigne Cheikh Fall ñoo tok ni sewet ndax kat ah ciakar bo gis ay bokk mo koy xad te ko andu tek say bokkit nak bokki jamm rek ngay andal waye nak ndokk ba ngeen xame lolu ndax seen wajuru baxu ni la ande i rakam seen wajuru baxu ni la ande i bokkam ndax Serigne Cheikh Fall bay goor kat bami dem dako baye bàyyeeg ñet ñett ko baye moy baye nako yoon wi baye koog bàyyi ko bokki boppam yi mu yëkkati yoon yi di ko doxal ba yaakaar naan kenn ku ne teg ci bëtam mu fonk bokki boppam yi ba fu mu woote fu ne rek ay bokka mu koy njëkk a dar mu téye taalibeem mii nag ba xam ne jëggaaniwun leen kon jaaraama Serigne Cheikh Ndigal kooku nag ku mu doon sa baay noonu rek ngay mën mel kon ma dëgg dama yàlla na yàlla guddal seenu fan yàlla na leen yàlla wéral yàlla na leen yàlla kartanal yàlla na yàlla dooleel ba li ngeen yéene seen yoonu maam nag yàlla na ko saa borom mottali ci barkeb Cheikh Rahim Fall tan ànd koog yéen. waa juróom Serigne Cheikh Fall borom ndigal da koo jël yóbbu ko ca daara ja mu nekk ca daara ja jàng bo wàcc ñëw mu yóbbu ko mu tarbiyewu bu yemoon ca daara yi njàngaan ja rek wàcc na waaye dafa tarbiyewu bi mu tarbiyaa ba nu peet dafa dégluwaat ndigalul baayam ba mu dël ko fa mu ne kon tey jii bu amee bis ngeen ñëw indil ko lii. lii nga xam ne moom ngeen ko indil tamu bett ko lool yàlla na di ngëneel suñ borom bette leen ko ndax sëriñ Cheikh Fall Baye góor maamam ju baax ja mooy wax ni saa boo bettee sa kilifa ak lu lu ko bett suñu borom bett la ak jomb lu jomb joojee sëñ Cheikh Fall wax na yàlla na leen dal sëriñ bi nag ñoo ngi lay santaat bu baax a baax ndax woote bis yomb na luy sees yomb na luy baas yomb na waaye luy nit nag moom yombul kon soo wootee bisimilah. Amadou Fall Seer Ndiaye Birane ma cangaay ba ñaar yëpp déggeen may doy mbër day nuru mbër ñu xam ne mbëree baayam ma si biir ku ma faaleew lii mënta ñàkk ci yow ndax ku xam sa maam ju baax ja Cheikh Ibrahima Fall lamp babul muri diina ku fi baax mooma may dee tawaay nuyu Cheikh Modou Moustapha Fall mi ñu la duppee nga xam ne moo rek la yoon wi mani deetawaay ñu ñëw ci Serigne Cheikh Fall baayib góor mi nga xam ne ku fi góor mooy sa baay mani deetawaay ñu ñëw Serigne Cheikh Ndigal Fall gaynde ak xel koom gaynde ak yoon wi jàmbaar yoon wi Amadou Fall Seer Ndiaye Birane ñi ma cangaay ba ñaari déen mesi bi ku ma Fall nañ boole faraxat ca njaan ndéem may doomi mbër de nuuru man ñu xam ne mbëree baayam faal boo melul ni tooñ waaye nag waa caaro gi waras na leen a sant de ndax kom yàlla te fonk ko lool bëgg ko lool waras na laa sant waaye nag faal lépp na nga xam ne yow a de lañ la li nga juddoo yaroo ca màgge ci ne ca rek boo ca ne léppay baax. ah mbay waa caaro yi. wëree leen a sant waa caaro yi war a sant. loolu am Cheikh Moussa mooy premier xalifab Cheikh Ibrahima Fall. tey jii Cheikh Moustapha Fall dellusiwaat fii di leen defal bis kon waa Caaroy war a sant Cheikh Moustapha Fall waaw waa Caaroy lu ngeen sant doyul Amar Fa Seer Ndiaye Biran Jegi Càngaay may sa bigge Kumba Fall man boole faraxati keroog njaar ndem bañ naa reyub déggen Cheikh Moustapha Serigne Cheikh Ndigal Fall la ni wooye sa baay Cheikh Moustapha Serigne Moutala Fall la ni sa baay Cheikh Moustapha Serigne Sang Fall la ni wooye sa baay waaye ah. Cheikh Moussa Cheikh Moussa Fati Kala la ni wooyee sa baay. Amar Faat Seen Ndiaye Birane Jegi Càngaay may sa biig ko ma faal boo wootee war naa mën a neex. luyee siis yomb na luyee baas yomb na waaye nit ñi loo balub tànk la loo dóor ci seen kaw rek loolu lan lay deloo Fall yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na nga woote yàgg woote ñu yàgg laa wuy si barke maam Seera Fall. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëñ Moussa Fall di ay kàddu yoo xam ni sëriñ bi da koo jël yëkkati jaarale ko ci sama jëmm ji mu jëm ci sëriñ Fallou Ndiaye sëriñ Fallou sëriñ Moussa Fall dafa wax ni euh, xolam sedd na xelam dal na te wóllëre gi nga xam ne fasante woon na ko ak yow gën nga koo dëgëral tey jii ndax kat am bis woote ko ak yitte ni mu fooree nga dagg sa yitte yëpp ngir yàlla ak jëmmam ji waaye nag danga xam li ngeen bokk ndax kat seen maam ya doomi yëkk lan woon ak doomi wëllu ci ñi ko xamul doomi ndigaay doomi bàjjan lan rek sëñ Daaru Asan Njaay Cheikh Rafal kon bu sëriñ Moustapha wootee bis nga dagg sa yitte ñëw teewal ko Serigne Moustapha ameel na la cant waaye cant googee da koy dugalaat ci biir cant gi nga war a cantaat yooyu Serigne Moustapha ndax jamono toll na foo xam ni ci yàqu-yàqu ak ci doyadi képp koo xam ne day def bis bu mel nii di la ca woo ameel nga ko ak cant yooyu it waaye Serigne Moustapha ñoo ngi lay sant bu baax a baax yow ci woote bi nga xam ne da nga cee woo ndax yaa ngi feggoog sa doomi bàjjen mu jóge ba ci la sëñ Ndiaga Sylla di seen féete di seen xarit waajuram sëriñ Modou Aminta ko jur sa waajur sëriñ Cheikh Fall Baye góor a ko jur ngeen bokk menn maam muy sëñ Modou Moussa ngeen bokk menn maam muy maam Cheikh Fall kon soo wootee mu dagg ay yitteem jóge ci ñëw moom it ci bis bii dara jaale la ko wàcc na waaye olof dafa wax ni mën na noo luyee ay siis mën a luye ay baas waaye ay nit kenn mun leen a luye yitte nag balub tànk la boo ko dóoree nit mu ñëw dellu siwaat sa kaw faal ñoo ngi lay sant di la ñaanal saw fan yàlla na gudd lool ndax ba nga watee ma waree dem daara sa waajur dalaa jël yóbbu la nga dem daara jàng alxuraan ba man ko mokkal tari bind ñëw mu ne loola doyul jël la yóbbu la daaray tarbiya nga tarbiya ba xolam sedd ci mo ci yow yitte jëm bëggoon ci yow ak la mu bëggoon a def ci yow mu def ko ci yow ba xam ni boo ñëwee ci dëkkub taax kenn du la mën a soppi kenn du la mën a sensé mu ne la mën ngaa dem waaye mën ngaa demi sëñ boobee taxul mu bàyyi la ak sa bopp ndax fu ngeen nekk bëtam ak xolam ak xelam mi ngi ci yéen waaye ndokk bi nga xamee ni yéen defu leen lenn lu moy ndigalul sëriñ bi leneen sëriñ bi digaloon rek ci ngeen nekk di saytu taalibe yi di jàng alxuraan di digal nit ñi ci lu baax nekk ci nit ñi lu baax di woote bis yu baax yi yàlla sa jàmm yàgg. ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi di ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi ko ñaanal sëriñ mu ni Modou Mbend ak sunu kilifa yëpp sëriñ Fallou Modou Aminta sëriñ Cheikh Fall boroom ndigal di rafetlu jotaay bi man nag ku xam-xam ni. li may jàpp ci nit maanaam mm, yàlla rek la waaye sëñ Fallou mii ni ma def man sax defuma ko sëñ Fallou moo ma njëkk a woo boo ak FM ni ma defal naa la ci émission sëñ Fallou maa tax mu dagg itteem yu mu sëñ Fallou maa tax bërki démb mu nekkoon seen dëkk ñëw maa tax mu dajale lépp loolu nag cant la goo xam ni lu nag turu sëñ Fall def na ci loo xam ni wàllu saahir wàllu baatin yëkkati alalam di ma jox lii nii mu indi nii ci mbooloo mi sax fooguma ko ci woon ànd ak góor yàlla yi ànd ak soxna yi loolu day damay gën a soññ sama diggante ak moom mu ngi ci géejawaay di jàmbaar lool nag di ko yàlla dimbali muy koo xam ni sunu mbokk la ndax way juram mbokkum Cheikh Ibra la ñu dëkk fële ci njare bu ko neexoon man naa seexu rek waaye man de bu ma ñëwee këram da naan eh, kilifa gu mag moo ñëw seet sëñ Fall dootu toog lu ne lay jëli indi yëkkati at jox ma ni ma ñëwal nii. def ma loo xam kilifa war ma joo xam ni léeg-léeg sax man maa koy rusa woo ndax saa yu ma ko woowee njariñ feeñ waaye nag li ma koy ñaanal mooy bis bii lañ am mënuma am leen lu ma la fayee ndax bu dee xéewal ma bu ma la ko joxoon da ngay bañ waaye bis bi la ñu am samay mbokk ñëpp teew samay limaam man la sëñ Fallou bis bi bokk nga ñi ma ko dara jaale ndax doxin wi ngay dox te na nga xam ne jàpp gi tey lañ ko commencé feddali ba kanamu Cheikh Ibra di siyaar sunu mu féete sëñ Njaga nga xam ñu ak moom ñoo nekk fii euh, euh, ci Dakar nga xam moom dañoo bëgg ñooy àndandoo di reerandoo léeg-léeg comme gis nga nar de mun la Moustapha yow ñoo bokk maam sama mbokk nga sañ naa laay yedd tegul ci yoon lii moo gën ci del tudd yàlla wi del nangam te maa ne moo maa ngi moom ñoo yam ci yoon wi ndax sëñ mu doomin taa jur way juram kon ñu ngi santaat bu baax di sant mbooloo mi yëpp nag muy góor ak jigéen mag ak ndaw samay ndonga am naa ñu ma ci gis ñuy soog a ñu ñoom El Hadj Ousseynou ñëpp waaye ak sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax nag ñii nga àndal taxawaay bi li ma lay ñaanit mooy ñu àndaat dox ndànk àgg ci baas bi bu ko defé ñu mëna commencé turu yalla bi ak loolu ci kanam mbolo mepp ndax seere bi dama koy tambalé rek wayé dinañ ko àggale bu soobé yalla waaw. mbokki julliti ak mbokki talibé ma ngi leen di di leen jox seen way di nuyu Serigne Ndigal imnu Serigne Cheikh Ndigal Fall borom Ndigal ñoo ngi santat yalla bu baax di julli ci yonante bi alayhi salatu wassalam di nuyu sëriñ taxa Mbàkke yàlla na koy sama yàggal te wéral ko di nuyu sëriñ am di Amdi Moodu Mbenda yàlla na ko sama yàggal te wéral ko di santaat yàlla bu baax a baax nag di wax alhamdulilahi rabbi alamin ndax maam Cheikh Ibrahima Fall dafa wax ne jotaay njariñ lépp loo gis da koo gën jëmm ji nag Cheikh Ibrahima Fall lañ ko jàppee man Fallu Cheikh Ibrahima laay jàppee jàmm ndax man Cheikh Ibrahima dana ragal péete dafay xañe wërsëg man Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall rek laa féetal moom mii nag li tax ma jàpp ko faal gi bari na yaatu na fu ne ay mbokk lañ fa waaye Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall rek lañ ko jàppe di ko seedal nag ay bokki boppam nag di leen xamal ne moom Cheikh Ibrahima Fall laa gis ci moom ba jàpp ci moom ngir jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall def ko muy sama féete ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall. def ko muy sama xarit def ko muy sama lepp ndax nit ki nam la def non rek nga koy delloo mom mi day defal nañu lo xam si ni ab lam mënu ko laal ndax and gi démb la tay soog a ñëw waaye nag maam Cheikh ibrahim fa rek ko ko waral mourid yi ñu andal Cheikh ibrahim fa rek lañ andé fe ñu nek fa geejji way Cheikh ibrahim rek lañ fi dund kon di leen xamal ci bis bi sëñ mustapha mi li tax ñu teew fi jëmmam ngir maam Cheikh Ibrahima Fall ndax wuy juróom laa koy xoolee sëriñ Cheikh Ndigal Fall defal na ma su ma gisee wuy juróom war koo fay mënu ma koo fay nag waaye dama koy cant sama xol di ko cant sama làmmiñ di ko cant ci mbokki taalibe bi ñëpp xam ne lii ab péete la kon nag ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal suñu borom defal ko tew tawféex ñun nag alali maam Cheikh la ñoo wax lu dul maam Cheikh Ibrahima Fall mooy suñu féete dëgg la ñuy dund deug gi ñu dund nak mom rek lañ andé deug nak alal yàlla la mo ñëk mo muju faal gi bari na way li la suñu borom dogal suñu digënté kon di sante bu baax nak di gëreem ci ab taxawayam ndax mom mi kat da dis gan ci bépp wet way da woyof tol Cheikh ibrahim faal le gën le gën kër yàlla Cheikh ibrahim moko rango muy baatu la ilaha illallah le kër le gën kër Bamba Cheikh ibrahim rango mi Serigne Touba waaye moo gën a woyof ñëpp de bu njëkk dof lañ doon wooye Cheikh Ibrahima Fall di ko wooye dof ba tey ñëpp bëgg a mel ne Cheikh Ibra ponki sariya boo ci génne ak taalibe mu jeex ak taalibe nekku ci de waaye saa ci génne mu jeex te Cheikh Ibrahima Fall rek ko waral kon képp ku ku julli amal nga Cheikh Ibrahima Fall njukkal kon ñi ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant sa mbokk mi toog si la ku baax la ndax moo ñu dalal yàlla na ko suñu borom defal tawféex olof Njaay dafa ne nit mbokkam nit mbokkam waaye wat gaal ak yëgoo ñu bokki pas-pas ñooy mën a ànd jëm fa yàlla moom mii dañoo bokk pas-pas ànd jëm fa yàlla waaye di ko seedal na suñu liggéey nag dañ koy tàmbali ci moom jëmee ko ci kër Cheikh Ibrahima Fall di ko seedal mbooloo mépp nag bay Fall yi nga gis ñëpp nag lenn rek lañ àndee muy Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibra ga ñuy dund ñuy dund Cheikh Ibra ñu ànd ngir maam Cheikh waaye Cheikh Ibrahima Fall rek lañ àndee teew gi ñu teew tamit dañ koo teew ngir jëmmi Cheikh Ibra boo woote woon feneen fu ko gën a sori ñu dagg suñu ite teew fa ngir jimmi maam Cheikh ndax Cheikh Ibrahima Fall rek lañ ko jàppee kon di ko ñaanal baax doomi yëkk nag nii rek la baaxoo adduna nii la bindoo te rek lay bindoo waaye nag ñu ngi lay ñaanal bu baax di la gën a ñaax nga gën a góorgóorlu ci kër Cheikh Ibra ndax kenn bokk ci Cheikh Ibra di des ginnaaw te moom mii desul ginnaaw Cheikh Ibrahima Fall mooy lépp nag kon ñu ngi koy ñaanal di sant ak gërëm di sant mbokki taal bi ñu àndal ñëpp nag ñii ma àndal mun mënuma mare na fay ci dara ndax yàlla moo ñu boole boole gu ñu suñu borom boole Cheikh Ibrahima Fall moo tax te kenn bokkul fa nga xëyee dañoo bokk yi pas-pas bokk luñ bëgg bokk fu ñu jëm muy kër Cheikh Ibra fas yéene liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall dëkk bii ñu dëkk fii nag dañ koo dëkk ngir liggéeyee ko maam Cheikh sa maam. lépp loo xam te ne yëkkati nañ ko fi muy baatu laa ilaaha illallah loolu rek moo ñor.